mooy traité les cas juridiques les questions juridiques mais aussi l'actualité mais nag tey dañuy ñëw ci aspect bu amam solo boo xam ne soxal na ñu bëri bëri bëri parce que fii si Sénégal les automobilistes vraiment bëri nañ trop trop trop bu fekkee man ak sama copain Amadou Kébé bokk ñu ci automobilistes yi mais bëri nañ trop trop moo tax nag tey ñu bëgg ñëw ci li nga xam ne mooy l'assurance automobile donc bëri na ñi nga xam dañu doon laaj ñu def une émission sur ça tey nag la am occasion bi avec un invité de marque ñu am tey élage Hadj nga xam ne mooy directeur technique de l' association des assureurs du Sénégal tey moom la ñu dalal monsieur Diop ñu lay dalal di la remercier bu baax a baax a baax pour invitation bi nga xam ne accepté nga ko ñu ngi lay nuyu. ñoo lay fay euh, euh, di la gërëm bu baax ci euh, visite bi ngeen joxal ñu encore occasion pour ñu wax ci ci liggéeyu assurance. donc yaakaar naa ne euh, lu nit ñi di xaar la euh, ndax assurance euh, bi ci biir xam naa dinañ ci wax nekkul loo xam ne nii ñëpp tey xam nañ ci li ci nekk lépp donc lu mel ni bu ngeen ko defee ñun amuñu lu dul di leen si sant di leen gërëm hmm, parce que dañ ko aajowoo métier am assurance dafay métier boo xam ni li ci ëpp gars yi dañ leen di euh, reproché ni du ñu génn du ñu wax donc yéen boo leen di joxee occasion ñu mën a toog di wax nit ñi di ko dégg di ci xam loolu am na njëriñ. loolu am na njëriñ ci li nga wax lay ñëwaat léegi sànq da nga ne nit ñi exactement xamuñu bu baax a baax liggéeyu assurance. Mhm. lu waral li ni mel cest dire est-ce que sénégalais bi mu amul habitude boobu noonu wala du nekkul benn pratique boo xam ne ñun vraiment dañ daan nañ ko def muy ñu ñu continuer di ko def aussi. waaw loolu nga wax noonu am na ci cest à nekkul loo xam ne bokk na ci suñu aada bokkul ci suñu cosaan bokkul loo xam ni dañ ko dundaale dañ ko mën nañ ni dañ ko jëggi te bi ñu ko jëgee ci biti aussi dañ ko indi waaye nekkul loo xam ne tey euh, bu dul ci jamono yi ñu dugg nii fi mu nekk nii euh, ñu ngi koy commencé mais bu njëkk loolu amul woon cest à di ko wax ci kàllaamay euh, dëkk bi nga xam ni dëkk bi ñëpp dinañ ko mën a xam donc contrat yi njëkk a def ci Sénégal daanaka ay contrat la yoo xam ne dañ ko doon jële bitim réew rek di ko appliqué donc loolu bokk na ci li ko taxa Euh, euh, yéex a décollé dëggantaan ci ci ci ci population bi. Mm-hmm. mais am na benn exception c'est-à-dire si wàllum assurance boo xam ne je pense que tey moom la ñuy waxtaanee muy assurance automobile mm-hmm. donc luñ ci mën a wax ci wàllum assurance donc li ko nit ñi vraiment demuñu vers les assureurs wala assurance nekk na loo xam ne vraiment dafa nekk ci ginnaaw un peu par rapport ak yeneen domaines yi. Mm-hmm. mais assurance automobile nekk na loo xam ne vraiment fii ci Sénégal am na doole bu baax a baax a baax. et li ko sabab mooy assurance la boo xam ne dafa obligatoire euh, képp koo xamante ni yaa ngi yore oto euh, yoon dafa wax ni yow waruloo circuler ak sa oto bu fekkente ni amuloo assurance ba tax na tey man nga ne loolu tax na euh, souscription bi poser warul poser problème que nit ki xam ak mu ñàkk xam moom il mu am assurance parce que dañ koy contrôler bu fekkee yorul assurance day am problème jafe-jafe ak euh, ak euh, service de sécurité yi alors li tax mu nekk obligation aussi loolu yomba xam la de manière terre à terre ndax oto euh, dafay loo xam ni dañ ko considérer comme étant très dangereux c'est un objet njëgu oto boo ko xoolee ak li oto mën a indi ci ay dégâts alors donc législateur bu ni lii ku ko yore kenn du ko bàyyi ci say loxo il faut nga ñu woo koo xam ne am na xam-xam ci euh, bu fekkente ni yow euh, yaa ngeeg oto bi mu defal la garanti boo xam ne yow problème boo mën a indi lu dagaa ba rëy rëy rëy moom mooy ñëw taxaw sa diggante ak ki nga joteel moom mu jëflante ak moom cest à mu fay ko loolu tax na ba tey boo defee accident bu ñu ñëwee ñu xool document yi yow bi nga xam ne def nga dégâts bi bu fekkente ni vraiment amul euh, homicide en général bu ñu constaté ba pare da ngay ñibbi sa kër doo jaar police doo dem fenn ci constant bi foofu ngay pare def say kii bu dee homicide nag loolu mbiru yoon la mbiru procureur de la république pour jël bakkan forcément il faut nga dem toog ci kanamu procureur. kon boog wàllum assurance mën nañ ne perte de vie humaine donc du ci bokk bu fekkee ci wàllum assurance automobile la. ah kay yi nga xamante ni moom la ñuy indemniser. Mhm. sa responsabilité la comme dégâts bi ak muy matériel muy corporel bu ko am dégâts rek sa garantie bi day jouer. Mhm. donc assureur bi day ñëw bu fekkente ni ñi ci accidenté la victime blessé yi la assureur bi da leen di jël en charge bu fekkee oto beneen nga yàq aussi wala këru jàmbur nga yàq wala pylône nu Sonatel matériel la ak corporel yëpp ci responsabilité. ñëpp ci ci responsabilité mais tey ji bu ñu bu ñu jëlee un peu l'assurance ak li nga xam ne mooy. personne bi nga xam ne moom mooy dawal la voiture par exemple tey jii nii fan la degré de responsabilité yam parce que yaa ngi koy wax léegi léegi des mën na andi yoo xam ne yéen du ngeen ko laal c'est-à-dire yoon moo koy yoon moo koy laal donc fan la démarcation bi nekk entre l'assureur ak la responsabilité individuelle mhm. du du conducteur waaw xam nga kii dawal oto bi moom c'est lui le responsable des mouvements de la voiture de la voiture donc de tous les dommages que le véhicule on peut considérer que c'est euh, en grande partie de la responsabilité du conducteur. Mm-hmm. alors maintenant euh, euh est-ce que <coughs> oto bi la ñu garantie wala est-ce que conducteur bi la c'est les deux en vérité hmm, c'est les deux euh, oto bi moom ci boppam mën nañ ko gaare dawaluñ ko mu am problème dans la circulation tàkk wala yooyu laal oto jàmbur même si le chauffeur n'est pas là le véhicule est pris en charge donc les dégâts sont pris en charge bon maintenant quant à l'évaluation euh, c'est la loi bu fekkee matériel bi la c'est à dire d'experts bu dee montant yoo xam ne jar na expertiser expert moo koy wax mooy wax ne lii day gannaaw accident bi mooy li nga xam ne mooy dommage yi nga xam ne assureur bi war na ko delluwaat pour defaat oto bi ci situation bi mu ko fekkoon avant accident. bu fekkente ni corporel bi la aussi yoon dafa joxe ay euh, référence comme par exemple barème de responsabilité barème de de d'indemnisation du moins buy permettre euh, assureur bi bu fekkente ni dommage corporel kese la sans mort ñuy évaluer loolu docteur médecin légiste mooy prononcé wu mooy wax ne accident bi wàññiku wàññiku yi mu def ci ki ki mu dal mu ngi toll tel niveau tel niveau tel niveau niveau bu ci nekk muy mettit muy mettit bi mu yàqu-yàqu bi par exemple loxo bi mën na damm ñu defar ko mais loxo bi di dikkaatul à cent pour cent donc am na diminution euh, donc yooyu yëpp docteur moo koy wax bu ko defee assureur bi moom ci base boobu lay fay euh, foofu aussi euh, état bi moo joxe benn référence boo xam ne ci la ñuy basé wu pour fay ko euh, bu fekkente ni par exemple indemnité journalière bi la cest à toog na ay 90 jours yoo xam ne liggéeyul bon bu dee ko am salaire la salaire am mooy nekk baas bi ak yeneen taux yi nga xam ne moom la législateur bi défini moom la expert médical bi wax euh, bu ko defee salaire am la ñuy jël appliquer ko ci taux yooyu ñu ne perte na ci liggéeyam nangam ci ay euh, xaalis ko yu ko assureur bi war a war a fay alors bu fekkente ni euh, du koy liggéey nga xam ni c'est la majorité des victimes li ci ëpp ñooñu la euh, euh, législateur bi dafa joxe aussi référence mooy SMIC annuel le SMIC annuel le salaire minimum interprofessionnel garanti ku amul salaire kooku mooy nekk sa base taux yi nga xam ne moom la médecin bi wax moom la ñuy jël appliqué ko ci SMIC annuel bi pour ñu déterminer ñaata fan moom la moom la moom lañ ko war a. moom ngeen ko war a indemniser. mais un peu dinaa ñëwaat un peu ci wàllum expertise bi parce que des fois aussi. Mm. problème la boo xoolee ci wàllum assurance cest à fois balaa ñoo jot expert bi muy def expertise bi des fois dafay jël bokku de beaucoup de temps loolu tamit problème la ci wàllum assurance aussi. waaw xam nga kooku conséquence la ci loo xam ne nii. euh, c'est la responsabilité aussi du circuit de distribution de l'assurance. En général, tout commence par ça, sans pour autant euh, enlever la responsabilité de l'assureur lui-même. Parce que c'est l'assureur moo nekk à la base moom mooy joxe këyitam donc comme moom mooy joxe këyitam ki ñuy jox këyitam dañ koy considérer comme préposé wu assureur bi la donc lu mu def c'est la responsabilité de l'assureur mais loolu yëpp ci suñu doxalinu réew dafa laaj ay ay liggéey liggéey yooyu ñu ngi ci ñu ngi seet nan lañuy def ba nga xam ne saa yu accident amee mu wóor ne accident bi boo yóbboo ko ci assureur bi assureur bi bu duggee ci système am rek day gis ne effectivement oto bi assuré na mu daal di instruire immédiatement kooku dootul am lay mais bu fekkente ni assureur bi dafay jot dossier euh, service constat bi ni ah kii de telle société moo ko garantir ñu dem ci société boobu société boobu xool ci système am xamul oto bi léegi du nu mënul rejeter de toutes les façons mais li muy def day jël temps pour di xool ah di xool fan la jóge mm-hmm. assurance bi kan moo ko joxe et le temps que muy def noonu recherche boobu circuit bi dafa yéex voilà souvent ça peut prendre du temps beaucoup de temps même. Hmm, mais c'est pas le cas vraiment général c'est les exceptions qui causent des problèmes quand même euh, beneen élément bi nga xam ni mën na indi ay lenteur aussi euh, man nga jot lettre d'expertise bi nga dem ci expert bi expert bi au lieu mu def quinze jours moom mu def par exemple un mois yooyu aussi day répercuter ci assureur parce que tant que assureur bi jotul rapport expert bi moom mënul avancer en général. ci lenteur boobu noonu vraiment dafay andi problème ci wàllum prise en charge parce que boo xool ci wàllum assurance nit ñi lu bëri bëri bu leen indexé ci loolu lañ leen di indexé un ci prise en charge balaa ñoo ñëw un ci prise en charge dinaa ñëwaat un peu sur les types de police d' assurance un ci wàllum oto parce que nit ñi gisuñ nañ ñu vraiment bi ci gën a yomb la ñuy la ñuy jël est ce que amul yeneen barème aussi ak yeneen police yoo xam ne ñoom ñoo gën a sécuriser la personne voilà léeg-léeg day am ay malentendu yoo xam ne. loolu mooy nekk fondement bi loolu mooy tax muy am euh, ndax nit ñi dañuy jàpp ne rek euh, assurance boobu obligatoire. boobu rek mooy assurance. Euh, ci ci wetu assurance boobu. dafa am yeneen forme assurance yu nekk ci même oto bi ngay assurer responsabilité civile. pour boo moom la ñuy wax dommage au tiers. cest à yow ña nga yàqal. ñooñu la sa assurance boobu di jël en charge mooy responsabilité civile et ça ça ressort de l'article du code civil le 1382 qui dit boo yàqalee doomu aadama da nga koy defar da am obligation nga dem nga defar li ko yàqal mm-hmm. ah, donc foofu la jógee mais yow mi nga xam ne yaa yàq yëfu jàmbur yow sa responsabilité la sa oto aussi day yàqu ci accident boobu bu fekkente ni jëluloo assurance boobu noonu nga xam ne pour en cas dommage yi nga am yow ci accident boo causé assurance boobu du mën a jouer léeg-léeg nga gis ku mbëkk nit par exemple kooku moom woo ku ko constaté mu constaté mais ki nga xam ne moom moo mbëkk day dem ci assureur am en général dafay yaakaar ne moom assurance am boobu dina réparer ay dommage am ce qui n'est pas le cas. ce qui n'est pas le cas. Mhm. foofu am na am na ay assurance yeneen. moom la ñuy wax euh, garantie euh, accessoire yi nekkul obligation mais yow par exemple mën nga yore sa oto mu nekk auto transport muy jóge fii di dem ndar mais day def tonneau mën na def tonneau mën na bañ dal ci kenn wala mën na génn dal ci garab ah yooyu wala mu tàkk loolu du responsabilité civile loolu dommage au bien la mhm. donc yow boo jëlee sa obligation ba pare da ngay jël assurance yooyu mooy tax dommage bu mën a am ci oto bi nga mën ko indemniser. nga ko indemniser sànq yaa ngi wax un peu ci ay cas de force majeure comme par exemple taal dawal oto ba mu ba mu tàkk par par exemple. wala situation yi ñu nekk actuellement y a les émeutes y a tout des manifestations nga tombé ci ñu yàq sa oto est-ce que loolu dafay dugg dans le cadre de la responsabilité aussi de l'assureur aussi. waaw kooku du assurance oto mooy dox foofu. Mm-hmm. émeutes yi et mouvement populaire. Euh, am na garantie ñu ngi koy jaay actuellement mais jotewul ak assurance auto euh, du assurance auto mooy dox foofu kooku police euh, ñu ngi koy wax PVT ci anglais yi quoi hmm. grève émeute mouvement populaire hmm. mais beneen type d' assurance la boo xam ne dafay am alors bu amee dégâts yi nga xam ne mouvement bi créé na ko effectivement dañ leen di indemniser tey boo demee par exemple y a certaines stations qui ont été euh, touchées ouais, touché, ouais. Mhm. certains avaient euh, stations service avaient des garanties mhm. euh, PVT grève émeute mouvement populaire ou mouvement politique hmm? mhm. ñooñu am nañu instruire déjà seeni dossier ba fu nekk nii dañuy am indemnité ñi nga xamante ni aussi les mêmes mouvements fekk nañ seen ay oto ñu ñu ñu ñu nekk ci biir police boobu police PVT bi oto yooyu effectivement dañ leen di indemniser. donc day fekk mu nekk dans le cadre ci police boobu noonu. bu fekkee dugg woon ci police boobu mënoo demander une réparation. bu duggul ci police boobu benn moyen rek mooy des comme yi fi daan am. Mhm. état bi mooy xool ndax am nay moyen pour jàppale nit ñi fay leen wala déet mais bu dul loolu. du secteur assurance. du moo koy moo koy laal loolu tam da ciy baax un peu ñu waxtaan ak ñi parce que des fois ñi dañuy foog ni lu dal oto bi rek. assurance da koy mën a régler donc problème de malentendu la wala problème la ci yéen yéen a communiqué wul bu baax a baax avec les personnes aussi. bon c' est partagé c' xam nga euh, tubaab bi dañuy wax ne. Mhm. Euh, l' assurance ne se vend pas mais ça s' nit ñi euh, war nañ ko dimbali pour mu xam. mais moom itam war na xamal boppam. yow mi am risque tant que xamuloo risque bi nga xamante ni yaa ngi koy yore ah dafay indi complication aussi pour te faire toujours euh, prendre des assurances mais assureurs yi am nañ foofu une obligation même je pense ah euh, d'informer d'informer hmm, euh, risque yi nga xam ne surtout c'est obligatoire yooyu moom l'assureur est tenu à une information complète sur ce qu'il propose kooku moom c'est obligatoire ah mais yi nga xam ni ay risque euh, accessoire la yoo xam ne c'est pas obligatoire bon nit ki léeg-léeg am na ci ay ñoo xam ne sont avertis xam nañ risque bi ñu am ba ñoom dañuy dem seeti assureur bi ñu ko mën day boo xam ne su ma sañoon ci am garantie assurance. di nga ci am garantie assurance dina ñëwaat un peu ci prise en charge parce que c'est aussi problématique des xaar li nga xam ne mooy assureur dañuy dem defaral ko seen bopp. donc loolu aussi prise en boobu noonu aussi nan lay demee après. loolu yëpp ça peut être. Mhm. parce que dans règle même. loolu moo waroon nekk parce que c'est une assurance de remboursement de frais. de frais mais suñu économie ak suñu société. mayul ñu appliquer lu mel noonu. parce que am na ñoo xam ne boo leen ko boo ko defee ñoo c'est sûr que peut-être duñu réparer à jamais. mais euh, condition yi ci nekk mooy yow mi nga xam ne yow yaa yàqule te xam nga sa assureur yow mën nga dem ci sa assureur. tu déposes les informations nga ne ko nag man mënuma xaar dama bëgg defar suma oto ngeen am accord boo paree nga indi ay facture mais même évaluation yi danga koy wan muy xool c'est c'est normal ah, parce que police bi du garantie euh, victime bi rek mais ñëpp lay garantie mm-hmm. assureur bi en tant que gestionnaire bi fonds commun mm-hmm. moom warul def n'importe quoi war na donc xool li mu def mu remplir les règles mm-hmm. ah, donc bu la waxee demal defar aussi tu sais ce que je veux dire war na suivre li ngay def est-ce que c'est conforme aux méthodes d'évaluation prévues par le contrat d'assurance donc loolu rek mooy bi mais ça ne pose aucun problème mhm. parce que mais nag foofu problème bi ma si gis c'est-à-dire comme ni nga ko ni nga ko waxee c'est-à-dire euh, assurance bi dafay expertiser oui évaluer xool exactement le dégât ñaata la mais tey jii bu fekkee la personne dafa def defal boppam. Mhm. bu ñëwaatee est-ce que montant yi mën na mën na conforme des fois c'est-à-dire est bu ëppee est-ce que tamit boobaa duñu leen ko laaj aussi problème am. waaw mën naa am ay discussion quand même. Mhm. Euh, comme je te dis bu fekkee daf ko def en entente ak assurance bi. Mhm. du mën a am problème. parce que bu expert bi pare da koy woon assurance bi ñu ko ah euh, expert bi de lii la def. Mhm. ki ma doon expertiser la. assurance bi d'accord eh, ça ça ça ça pose pas de problème. bu fekkente ni d'accord yoon may na ko moom assureur bi mu ne man lii nanguwuma ko. damay jox sama expert moom tam mu xool mu jox expert après mu won ko victime victime bi comparé ñaari expertise bu fekkee ça convient tant mieux bu fekkee conveniru ko ñu dem cat sa expertise beneen troisième expert boo xam ne moom mooy ñëw nag xool su la base des deux rapports mu tranché mu doog a mu doog a mu doog a leer sànq. ñëw nga un peu ci expertise mi damay ñëwaat un peu en arrière c'est-à-dire le le parce que je pense que constat. mooy njëkk expertise bi. mais tey ji constat bi la plupart police gendarmerie ñoo ko ñoo ko def amul yeneen. organes yoo xam ne mën nañ ko aussi def pour ñu bañ a sonal aussi la police ak la gendarmerie seen liggéey bi bëri na ah d'abord donc loolu est-ce amul aussi d'autres organes yoo xam ne mën ñu leen laaj wala d'autres experts ñoo xam ñu ngi liggéey le constat si si si si euh, Euh, gendarmerie ak police euh, dañuy def constat boo ñëwee par exemple en agglomération en général police bu fekkee sinistre matériel la euh, police en général mën nañ ko def dañ ko daan def mais comme tu as dit bu fekkee hors agglomération si liggéey ah, hmm, bi dafay métti voilà ñoo voilà si si bien hmm. euh, ils n'ont pas toujours les moyens de bien faire rapidement les affaires. Ah, Et prendre du temps Même pour les nga souvent. C'est très compliqué. Mhm. nous quand c'est arrivé pour la région de Dakar euh, on a été sollicité un moment parce que ça posait des problèmes. Euh, est-ce que les assureurs n'avaient pas une solution à proposer pour, dans le cadre de la mobilité urbaine de trouver une solution pour éviter euh, le les, les problèmes d'embouteillage que ça créait quand il y avait un petit accident matériel, ouais, par exemple. Mm -hmm. Ça barre la route pendant peut-être euh, des, heures. Les gens n'arrivent pas au travail, donc c'est un problème. À l'époque, <coughs> on a essayé de mettre effectivement un instrument qui est appelé euh, constat amiable, qui est normal, qui se fait dans tous les pays euh, du monde. Euh, dans certains pays, tu viens avec des euh, les, les, chaque voiture dans les toboggans il y a des des, des prêts imprimés hein, que chaque euh, partie l'accident rempli signe et contre-signe pour l'autre et chacun va avoir son assureur et c'est fini. le constat est fait. mu les assureurs vont payer sur la base de ça. mu nekk fast voilà fast track. nous maintenant au niveau Sénégal. euh, on a voulu mettre ça en place comme tel, avec des prêts imprimés comme ça, mais nous avons dit que ici, euh, quand même dafa bëri ay ñoo xam ne jànguñu euh, te ñu ci bëri euh, ñu mu gënoon laal surtout au niveau des TPV Ndiaga Ndiaye car rapide et autres mieux vaut ñu trouver un moyen le moyen c'était quoi de créer une équipe hein, mobile qui a des scooters avec un système de téléphonie mhm. hein, connu, un serveur après un accident et puis intervention dans les 40 minutes, 30 minutes. Et puis ce sont des PV qui sont faits Et euh, l'innovation encore, c'était que là-bas, c'est la victime d'aller déposer en compagnie. Mais c'est qui, à partir d'un petit travail ici, au niveau de l'AS, va saisir directement euh, la compagnie responsable. Donc le PV est en même temps une déclaration d'accident chez l'assureur, ce qui précipite effectivement euh, la procédure de prise en charge du dossier. Et, de réparation. et ça ne pose plus de problème en général. Parce que eh, c'est clair que euh, les fraudes tu ne veux pas en parler, mhm. mais euh, ça existe. Hein. Mais dans ce cadre-là, euh, les ententes, ça n'existe plus, mhm. parce qu'il y avait des ententes. Euh, un grand là qui, parlait de d'entente euh, coquine, quoi. Ça vraiment mhm. que les gens trouvaient le moyen souvent de gonfler soit l'accident, de dire que l'accident a enlevant des parties du véhicule, faisant des photos extraordinaires. Mais aujourd'hui, à l'application du système, qu'est-ce qu'on a vu dans la région de Dakar, on avait en moyenne plus de 80% de sinistres matériels qui étaient, qui Voilà. Donc, lu jëkk li ñu li ñu constaté ci ci ci jamono jëkk yi mooy accident yi à Dakar yu ci ëpp ay moyens de cent mille francs la parce que souvent du nekk accident bu rëy nekk accident éraflure lay doon. comme les gars quand ils arrivent ils ont tout le matériel qu'il faut les appareils photo ils font les choses à chaud on sait exactement que on ne peut pas y avoir de fraude là-dessus sur les. mënul am fraude dinaa ñëwaat un peu ci ci ci ci loolu c'est-à-dire sànq yaa ngi wax ci accident yi. mais tey bu ñu xoolee Sénégal actuellement ak réseau routier bi vraiment. accident yu gën a bëri. oto yi mag yi ñoo koy andi njaga njaay yi carapit yi nga xam ñooy daw long trajet mais dafa mel ni yéen assureur da ngeen bàyyi oto yooyu noonu la police ak la gendarmerie. waaw xam nga ku ci nekk ak sa liggéey la aussi. Mhm. Euh, assureur bi moom li ko gën intéressé li ko intéressé euh, c'est c'est que oto bi am ay këyit yu wér. buy def assurance bi mu xool këyit yi mu wóor ko ni oto bi euh, carte grise bi c'est conforme ak moom li mu koy defal. Mhm. li ci des euh, ay sensibilisation sur les dangers de la circulation loolu assureur bi mën na ko te ñu ngi siy góorgóorlu depuis un certain depuis plus de vingt ans bon je peux dire depuis l'avènement de l'assurance ci Sénégal assureur yi dañu créer aussi prévention routière prévention routière prévention pour di waxtaan ak nit ñi ci danger circulation danger oto. teg nañ sax benn agence par rapport à ça. l'état du Sénégal mhm. voilà état bi finalement aussi. à mhm. créé l'agence l'ANASER. l'ANASER mhm. qui joue aussi ce rôle euh, pour interpeller les gens. et puis leur montrer vraiment les dangers de de, de la circulation. de la circulation. bu ñu bu ñu ñëwaatee un pense que dinañ ñëwaat un peu ci secteur bi aussi. Oui. parce que comme sànq ni nga ko waxee secteur la boo xam ne sa bat toujours de l'aile. Mhm. c'est-à-dire amagul doole bi mu war a am ba tey ba tey jii <coughs> malgré. Mhm. secteur automobile bi vraiment oto yi bëri na. Mhm. mais tey jii c'est quoi le problème tey jii bu ñu jëlee secteur automobile d'abord est-ce que c'est la sous-facturation parce que gis naa benn élément boo xam ne ci yéen la bokk mu mu koy mu koy décliner comme ça c'est-à-dire xam ne mooy wan ne secteur bi vraiment ba tey jëlul jëlul ampleur bi mu war a jël c'est-à-dire c'est la facturation mais aussi damay demander beneen question est-ce que aussi mm-hmm. c'est pas le manque aussi de réglementation du secteur aussi est-ce que yéen a ngi aussi règles yi nga xam ne moom la ñu teg vraiment mm-hmm. pour vraiment assainir le secteur aussi xam nga maa ngi la doon wax léegi ay liggéey yoo xam ne ñu ngi koy liggéey mm-hmm. euh, euh, ci cadre maîtrise u bi ak euh, commencer comme tu dis euh, par euh, la maîtrise de la distribution ah, surtout cest dire ñi nga xam ne ñuy jaay en fait l'assurance mhm. ñu war a dem ba àgg ci niveau boo xam ne comme nit ñi mënuñu ko def ñu ko yoon waxee ñu fexe ba am système boo xam ne dina tax kenn dootul mën a def sous-tarification comme ni nga ko waxee nga xam ne bon mooy les nouvelles technologies l'introduction des nouvelles technologies la digitalisation ah du système d'assurance automobile c'est possible parce que sa existe ailleurs ah, on est en train de faire du travail sur sa euh, loolu bu ñu demee ba def ko euh, ku ko bëggul it tu seras obligé alors euh, bi ñu koy waxee assurance automobile normalement boo xoolee ci parc automobile Sénégal dafa war a yokk bu baax a baax bu nekk nii en tout cas ñi ciy liggéey ñëpp ànd nañ ci ne am na xaalis bu bëree bëri ku nekk si biti boo xam ne egsiwul fa mu war a egsi d'autant plus oto yi rafet na trop je pense que war nañu xoolaat vraiment la facturation aussi yokku ñu ngi ci ay plus deux millions deux cent mille voitures immatriculées mhm. en principe Euh, assurance dafa waroon yokk surtout automobile bi comme comme ni nga ko waxee. ça bat de l'aile quand même. y a des bu ñu demoon ba ba ba régler loolu.